sàccee. <laughs> mais Ndiobu la Ndiobu ñëwul bi. la intéressé. Ndiobu lu la intéressé Ndiobu asmaa la feeloo ca wet. waa. bu ko yóbbu tekkul. ah waa. jar naa takkal pot de. bëri na sutura bëri na sutura macha allah ndeysaan. met. Hmm. Mr Fofana. <laughs> le grand. maa ngi lay ziar non. Fofana premier. déet Fofana kay. non bàyyil noonu rek. premier à la queue. déedéet. xam nga la may fàttali ci université. ah voilà jox ma njóob. li nga bokk nag li nga jox ji li nga jaajëf Ndiogu. maa ngi nettali ma ne. ba ñu nekk étudiant. waaw. université xam nga rek. boo waree dem ca restaurant argentin ñoom. Mm-hmm. ngi nuyu Hélène. oh camarade étudiant. Oh, camarade étudiant wallaay ndeysaan. ak ak waaja Diallo ka nekkoon nee na droit lay nekk moom boo ko waxee dañ lay may Hélène mu dee dekk. <laughs> ndeysaan. mais bu gaañu doon xam nga gaañ dañuy def la que bien sûr. Mhm, rang de ñun xam nga affaire banlieue <laughs> affaire banlieue daal bu ñu yegsee. au lieu que créer bousculade la kër nañuy def mooy wala <laughs> dem xëccante sa kanam pour dugg. créer bousculade sa kanam <laughs> léegi nag la seule solution c'est de vous laisser passer ñi se doo ñëw pour yëf yi ubbeeku kon jaar ngeen ci. mën na noonu nangu jalgat boobu mhm. ci université bi gis ñu créé beneen rang waaw bu ndaw fee waaw beneen rang ci bourse yi tam noonu lay bëri xët xët étudiant bëri xët xët fayeeku bourse bi rang pour dem étudiant lépp day rang sangu da ngay rang gaanuwaay da ngay raam lépp lépp lépp lépp formation bu am solo la da lay jàngal nga mun a dund en communauté et c'est mm. important alors mais tey fa ñu jëm waaw démb maa ngi doon wax waxu waa FONGIP waaw mm-hmm. parce ba mbas mi duggee ku ci mel ni Simon Faye dafa yoroon société amoon na ñaari employé moo xam juróomi employé moo xam juróom fukki employé waaye ba mbas ma duggee am na ay jafe-jafe moo tax état bi lëkkaloo ak ay banque ñu jéem a xool nu ñu lijjantee koppar maanaam pour dimbali ñi nga xamante ne nii kat dañoo nekkoon ci ay jafe-jafe. léegi gaa ñi trouvé nañ lu tolloog deux cent milliards muy ñaar téeméeri milliards yoo xamante ne nii dañ ko jëmale ci fànn boobu. lañu ñu njëkk jot benn téeméeri milliard bi nee na ñi ngi ko jëmale woon ci lu ñu tuddee. ay grande entreprise entreprise yu mag yi nga xam ne la fa nekk ci liggéeykat bëri na ca la ñuy yëngu tamit bëri na hmm. ñu créé waat beneen gise boo xam te ne nii defaat nañ ci cent milliards ñu ne lii de ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di taaba taaba entreprise yu ndaw ndawaan ni petites et moyennes entreprise ñooñ nañ koy dimbalee ak industrie bien sûr ñu dugal ci cent milliards ñu créé waat beneen gise boo xam ne juróomi milliards nañ ci dugal nee nañ pour dimbalee ko ñi nga xamante ne nii ay entreprise yu ndaw ndaw ndaw ndaw ndawaan parce que très petite entreprise nañ ko tudd <laughs> waaw mooy xam naa ne ñaari mam baye cartable ñaari assistant <laughs> ak benn téléphone fixe. ak benn cachet. ak benn cachet waaw benn cachet. cachet. cachet <laughs> entreprise. te cachet boobu rek nekk ci cartable bi nag. ak benn. bi ngay signé. bigu cent franc bi ngay signé. rapaca lan la. waaw <laughs> ah. nee na nga taal sa micro. waaw li yëpp ci entreprise bi. waaw. <laughs> dégg nga met mais léegi. Mhm. ba cour bi ñëwee gis na ne ne ci doxalin bi gaa ñi dox nañu koppar ñoo xamante ne nii bokkuñu ci lu ñuy tuddee secteur prioritaire. Mhm. ndaxte loolu xaalis bi la ko tax a jóg. mooy ñi nga xam ne ñi ngi yëngu ci secteur yi nga xam ne dafa am solo te amal solo loolu askan wi amalit solo ñi nga xam te ne nii ñoom ñoo nekk ci dëkk bi mm-hmm. lu ci mel ni sàmm gi lu ci mel ni mbay mi agriculture ñoom Sonacos yi ñuy waxtaane mm. ñoom noonu gaañe ca nañ bokk waxuma waa Sonacos mais agriculture ci boppam mm-hmm. tourisme ca la bokk jeunesse ci la bokk ak yeneen secteur yu ci mel ni tamit wàllum transport dem beeg dikk bi ci la bokk. Mhm. presse bokkul ci. dégg <laughs> presse moom jot na ca ministère de la communication. Mhm. jot ngeen sept cent millions. dégg nga met mhm. ñu ne mais pour nga mën a jot koppar gi. daa am loo xam ne moom la ñuy tuddee ay critères yu ñuy laaj loo xam ne moom nga war a ame benn mu di il faut nga bokk ci lu ñu tuddee. registre de commerce. moo di ne nga dem déclarer sa bopp. wane ne entreprise bi juddu na. yaa ngi yëngu ci lii ak lii bu ko defee boo enregistré marché. Hmm. mën a fay l'impôt. Hmm. du noonu. dégg la noonu la dégla la. <laughs> ñu ne waaye loolu da koy nekk balaa le vingt neuf février deux mille vingt. Hmm. parce que mbas mi le 3 mars la tàmbali kon entreprise bu judd ci après mbas mi. laajoon ñu lay dimbali. beneen bi mu di ne lu mu gàtt gàtt gaañu ne nañ faaw nga am lu ci tolloog juróomi emploie moo xam CDD nañu nekk contrat à durée déterminée wala CDI contrat à dure indéterminée. pourtant mën na juddu prématuré avant kii bi. dina juddu dëgg de. prématuré moom. nee na xuus ci dëkk bi sax. léegi CDI ak lan. CDD CDD wala du ko ci couveuse bi. couveuse ah, mën na ne ah. judd ba pare couveuse bi ne woon nag noonu. xaw na oh, lépp mën na ne Sénégal la. ba pare ñu ne léegi pour lu jëm ci sa chiffre d'affaires il fallait que nga am au moins 33 pour cent buy wane ne kat sa chiffre d'affaires lu jëm ci wàllu mbas mi gasagal na mm-hmm. donc ay critères la yoo xam ne gaañu dañ ko teg nee nañ. pour képp ku ko remplir su boobaa dinañ la mën a dimbali nga mën a jot ci financement yi. waaye mais en contrepartie bien sûr yow la war entreprise ba mooy employé ya nga yoon da koy maintenir benn. ñaareel ba salaire ba di nga leen fay à hauteur de soixante dix pour cent xam nga ñu ko doon waxtaanee ci temps mbas mi. Mm-hmm. ne état bi la mu bëgg mooy maintenir les emplois kenn du dem chômage bu ko defee au moins nit ñi mën a liggéey mais lañ la doon fay dañ koy wàññi peut-être yóbbu ko à soixante-dix pour cent. parce que li ci ëpp xam nga ay télétravail moo amoon. Mm-hmm. toog sa kër ñu jokkalante par internet. Mm-hmm. ainsi de suite. beneen bi di fonds yañ lay jox di la ko dimbalee mais c'est pour que nga mën a fay say employé dina leen fa téye benn. ñaareel ba nga mën ko réinvestir ci leneen loo xam te ne nii tey benn secteur d' activité bu lay permettre di nga mën a dund ak mbas mi léegi nag Cour nee na ba ñu defee xayma bi yëpp cent neuf demande nañu jot dix-huit yi mooy entreprise yu mag fukk ak juróom-ñett mm-hmm. am na quatre-vingt-une entreprise yi mooy yu ndaw ndawaan yi petites et moyennes juróom-ñett fukk ak benn hmm. na fukki entreprise yoo xam ne ñoom yu ndaw ndaw ndaw ndawaan ya nañ boo hmm. Mame Mbaye Ndiaye cartable amam ak ñaari assistant ak benn téléphone fixe. ak cachet bi bul fàtte cachet bi. mooy validé ak cachet bi cachet <laughs> gaañu nee na. cour na ba ñu xaymaa lépp gaaña la laaj. ci dix-neuf milliards loo tolloon léegi nag am na ci ñoo xamante ne nii gaa ñi jox nañ leen te teguwul fen ndax lan hmm. ah déet parce que bokkuñu ci ñi nga xam ne jàpp nañ ci entreprise yi nga xam ne ñi ngi nekk ci secteur prioritaire mooy li ma fi waxoon sànq hmm. mbay meeg càmm geeg ñoom seen waa jeu waa Dakar waa DGE ñoom jot nañ soixante-huit millions état bi garantir leen quarante et une non quarante un millions ñoom li ñu am ci emploi soixante dix nañ tolloo. ña nga woon fan fii ci Ndakaaru Njaay jël jóob gii. kon jot nañu. waaw. 68 millions. 68 millions. état bi garanti leen 41 millions. nee nañ am nañ juróom-ñaar fukki liggéeykat moo xam CDI la wala CDD wala ñoo xam te ne ay prestataire ne nee nañ entreprise bii di ERA audit et expertise jot nañ vingt cinq millions ñaar fukki millions ak juróom état bi garantir leen quinze millions ñoom nee ñaar fukki employé ak juróom nañu am ñu ngi fii ñoom it Dakaaru Njaay jël jóob gii dëkk ñoom Mambey Njaay gi tëngee wala Dakaaru Njaay jël jóob Cap Vert Cap Vert Cap waa Cap-Vert waa Cap-Vert waa Kayza ma nag yéen moom ay activité nee juridique et comptable waaw ci wàllum koom bi nee nañ jot nañ sept million état bi garantir leen quatre million nee nañ juróom benn liggéeykat nañ am ñu ngi fii ci Ndakaaru Njaay jël jóg fi du conseil jot nañ ñoom neuf millions état bi garantir leen cinq millions fii ci Ndakaaru Njaay jël jóg Eh? audit et conseil jot nañ ñoom dix-neuf millions état garanti leen onze millions ñi ngi fii ci ndakaaru gi ci Médina wetu groupe papaay ñoom Yacine <laughs> angle gumba wala angle muus xam naa est-ce que du angle muus <laughs> dañoo muus kay kon angle muus <laughs> waa ITEC solution jot nañ 73 millions. waaw ñoom ñii de daa mel ni mbay ñoo jël coupe ci yëf yi de. Hmm. coupe bi. 73 hmm? millions jot nañ ko. état bi garantir leen 43 millions. ak lu teg as fii ci Ndakaaru Ndiaye jël jóob gii nañ dëkk dëkk ñoom asma. Global informatique. xam naa ne ñoom. golo Grand Yoff nañ dëkk. laa bëgg xam Fofana. Mm-hmm. est-ce que saf neex jot nañu. soo si ay astafurla. Mm-hmm. lii saf neex mooy ñan. ñoom ñooy ñoom ñooy ñan. ah suite boobu. waaw entreprise très très petite. waaw waaw. mais laaj ci dong nag. waa mais waa mais ay kayitam. je l'espère ah, waaw waaw. ñaata ah, ah, am na ay CDI CDI am na CDD yëpp. bu dee am na contrat am na registre de commerce. am na newul ci liste bi. newul ci liste bi. ah ok pour man dafa tudd si yéen. ah d' accord waaw waaw. ah bokk non non damaa doxalal waaw. en tout cas. Mhm. doxalal. nit day juum nag. non mais c'est pas parce que am nga NINEA rek que da nga ciy bokk automatiquement. voilà alors on a parlé de demande. waaw de demande nga ñëw teg say këyit. waaw waaw ñu indi seen këyit laajte. voilà c'est ça ñu dimbali leen. Mm. donc yooyu yéen ñi ngeen di wax ñoom def nañ loolu. est-ce que soxla woon est-ce que soxla woon nañ ko. ah <laughs> non gëstu aussi gëstu aussi dañuy gëstu. ah da rek. <laughs> neuf millions ñoom jot nañ ko état bi garantir leen cinq million nee nañ ñoom fukki employé ak benn nañ am ci ndakaaru njaay jël jóob gii nañ nekkoon ca wetu Sacré ak ñoom seen ak club Fabrice Tudde ak ñoom nangam ak nangam mm. ah mm, yaaw nangam ak nangam nangam ak nangam <laughs> tout cas ca mbas ma la amoon waaw léegi gaa ñi nee nañ cour nee na mais ba ñu defee xayma xool-xoolaat gaa ñi dañoo jalgati lu ñu tuddee accord cadre bi nga xam ne moo lëkkat lëkkale état du Sénégal ak association yi nga xam ne ñoo lëkkale banque yu nekk fii ci mim réew ndaxte la ñu xamle woon moo dina xaalis bi même bu génnee nañ koy jox tamit ne wóor na ne benn dinañ rembourser bokk na ci critères yi. mais ñaareel ba dina leen mën a dimbali ci li nga xam te ne nii moom mooy sukkaliwaat seen liggéey ñu mën a delloo. buum nga ca mboy mboy ga mais tamit mën a maintenir li nga xam ne moom mooy employé kóor ne leen ba léegi wax ji wax ji moo di ne yéen waa ministère bi nga xam ne yéen ay économie plan ak coopération mi ëmb fonds bi nii mm. war ngeen mën a liggéey de telle sorte que jafe-jafe yu mel nii mais dootul am parce que nag jox ay nit ñoo xam ne yelloowuñu ndimbal wala boolewuñu leen ci ñi nga xam te ne nii kat la ñuy liggéey bokk na ci luy doxal réew loolu problème la met lan moo doon commentaire pour terminer sànq dafa am loo wax euh, maanaam dañoo dafa am ñoo xam ne dañ leen a jox te waruñu woon jot xëy na rapport bi foofu la intéressant yo parce que recommandation bi je pense que très souvent day ñëw donc y a problème quelque part ci suñu administration mm-hmm. y problème quelque part les fonctionnaires oui yaa a problème quelque part parce que bu mhm. fekkente ne man li may liggéey li ma mbay di liggéey ak li yaasin di liggéey am na fu ñu war a mën a daje war nañoo mën a am benn jumtukaay boo xam ne ku ci nekk di nga fexe ba xam fi sa morom yem yoo tam nga xam fan nga yem la nga ca yelloo nga am ko nga jox sa morom la mu yellool mu bañ am chevauchement mm. mhm. mais lii nii yëpp souvent mooy li ñuy faral di gis situation day am yow xëy na je ne dis xëy na looloo am yow man nga xam ne yaa toll ci séddale. nga fexe sa gaa yi cëru. yooyu tam day am. waaw. Hmm. xëy na tam mooy indi yooyu. moo tax cour. waaw sus <coughs> suspicion yooyu noonu am ci mbir mi. Hmm. moo tax ñoom ñuy suspecté li nga xam te ne ni jàpp nañ ne. loolu ngay wax justement. Mhm. est-ce que du wàllum ger. est-ce que voilà est wàllum parce que bëgg naa cëru mënuma cëru ma jël. Mhm. entreprise bu ma neex jox ko bu ko defee ma jaar. ci suuf waaw waaw loolu yëpp dafa nekk. parce que mhm. mën naa ay njëgu ginaar njëgu ginaar. njëgu ginaar. loolu tuuti njëgu ginaar. waay moo tax moo tax. Fofana. waaw gox yi il faut mu am gox yi. <laughs>

présumé. présumé ay des sanctions administratives et judiciaires. mais après Mamadou Fofana rappelait dans Obsatché très euh, <coughs> dernièrement. Mm-hmm. que euh, euh, dañuy nekk fii pour rectifier le tir peut-être la leçon quand le rapport de Cour des comptes vient c'est peut-être pour leur dire vous êtes mal organisé cette fois-ci. voilà la prochaine fois organisez-vous de telle sorte. mais il est vrai qu'il faut des punitions il faut des punitions quand même. c'est l'administration. ci boppam douze ouvertures information Euh, et, et, les DASH, ouais, ce sont des corps ouais. d'élite. Ah, wow. ah, ce sont des administrateurs civils. Bon, la préoccupation de, de Yacine, mmh. après-midi, le collectif euh, Sunu Milliard d'Oures, mm-hmm. war nañ daje mm-hmm. gouvernement bi à 16 Voilà, war nañ daje tey à 16h. Après, euh, bon, comme ñun dinañ yóbbu sunuy caméra ak sunuy micro, mm-hmm. dañ leen di bàyyi ñu daje. Ah, ba pare bu ñu génnee après ñun ñu ñu wax ak ñoom. Mi ngi il ayca rapport cour des comptes foo ko tudd rek mu jur coow. mais quand mais xaalis la. xa koppar la. suñu xaalis dañoo cotiser. xaalis la dañoo cotiser. suñu koppar la dañoo cotiser. suñu koppar la FMI nga xam ne moo tax.